Sëriñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku soobu na mes bu génnee xam xaramam ña xam yàlla ak ña xamoon yoneen ca baawun ba tey kenn a fi Seex Bamba jaar boromam ci géej gi la dàqee seytaane ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boromam ci géej gi la sëriñ Tuubaa dijjee dambi xam-xam bu noon ba fa bee kënoon sëñ Bamba ni kun boromam ci géej gi la sëriñ Tuubaa moomee mbuuti kun ci baatin ba fa muy yàlla muy faratay boromam balaa dara di am ci pii diwaan ñu di soog taam te mooy jaasi boromam ku weddi ba tax nga bëgg a wax ne man maay moromam Cheikh Bamba na def la mu def te dox la mu dox ci réew Gabon wa Congo jël si ci moromam te sàkk ku mel ni Cheikh Ibra Faati Cheikh Ibra Faati Cheikh Ibra Faati wa Ahmadu Ndumbe ak Cheikh Ibra Faal moom boromam te ku mel ni Cheikh Abdourahman Lo fi Mbàkke moo la xamal boromam te sàkk ku làkk jagleeg Cheikh Sidil Mokhtar ko dem ba Makka siyaare Yonent moo ki doomam Moussa li ngay lim doy ba tey jëfandikoo sa kay fara tey boromam ku dégg ñu jàng woy wi man nag ma ñaanal ma am ngërëmam te fi ba xam boromam képp ku dégg lii te Seex Bamba na moytoo def lu dul lu neex Seex Bamba képp ku dégg lii te gëm Seex Bamba na moytoo def lu dul lu neex Seex Bamba képp ku dégg lii te Seex Bamba na moytoo def lu dul lu neex Seex Bamba te jox mbiram yi yëpp yëpp Seex Bamba te bañ tiit ëllëg ngir sañ-sañ baa man gi naa ni waat naa ni képp ku gëm Seex Bamba te ngëm ga wér du lakk ngir sañ-sañ baa man gi naa ni waat naa ni képp ku gëm Seex Madal Xadim te sa ngëm ga wér doo lakk ngir sañ-sañ baa waaye na topp yàlla ngir Seex Bamba loolu la digle woon te teg coro yoneen ba waykat bu mag bi moo di taalu de Seex Bamba dellu di ab jaam te gëm Seex Bamba Sëriñ Saali wa Sëriñ def li ni ñu màggal borom jannatul mahwa bismil ilaahi ma dellu jaajo